fekk si fii suñu mbokk yi maa ngi am na suñu directeur général Mamadou Kassé euh, de l'APR nekk tamit tête de liste départementale bu seen coalition ñëpp ñëw jàpp si ñëw dèjà pour euh, wone suñu euh, taxawaay ak tamit di ñaaru tamit duñ fi bëgg a teg yenn yenn gor yi parce que li kenn mësu ko gis jàpp ñit depuis quasiment ñetti fan ci ñit bu doon dox soxloom doon dem ci ay mbokkam doon fa yóbbu ndimbali coalition Samba Sakadu ak njaalu coalition Samba Sakadu Kàddu gis nañ image yi euh, bala may euh, dé ñu né dañ koy top parce que dafa bañoon euh, dégg ndigal bu bayé ko ci gendarmerie ñu ñëpp gis nañ vidéo yi yenn yi am lu nopp mënul dégg amna lu xel mënul nang parce que président de la république su amé fi muy jaar lu ñuy woowee jalonnement jalonnement moy arrêté nit ñi mais mënoo gis benn gendarme kese képp rek donc ba nga arrêté convoi ne leen du dugg ci dëkk le euh, euh, président de la république day doxantu sax bi Dakar mais amul ken ku ñuy téré mu dugg bi Dakar lenn lañu mëna def moy cortège président bi su rombee jalonnement bi day arrêté yenen auto yi ak euh, li ñuy woy tamit ay piétons lolu ken gisuko ko fenn ci vidéo yi donc lolu c'est de la provocation Bougane Gueye Dany bu ñu japp depuis quasiment ñetti fan c'est une prise d'otage mais Biréla Lat wax ci Bougane Gueye Dany dafa don candidat ci liste sàmm sa kaddu te conseil constitutionnel validé na liste Bobo ba donc je pense que semaine bi rek day am quasiment euh, fi des comme euh, semaine de pré-campagne donc euh, j' espère que dinañ ko bàyyi parce que un ban magistrat bu sérieux moo ko top a qui ci euh, ci lu ñàkk fayda lu mel donc nous devons fi nekk nag wane nañ seen bopp wane nañ seen bopp parce que démb li lii la ñu doon ñaawlu euh, vaar yi ñu ngi fii moo tax suñu coalition ñu tuddee ko sàmm sa kàddu vaar ndax nit ñi di mën a gëstu vaar yi nit ñi di a partager vaar ak nit ñi di a euh, euh, saytu vaar parce que démb nga doon voté démocratie tey ngay wootee dictature lolo je pense que ñëpp ci teg seen bopp bon, le bët lu ci maintenant moi société civile tamit ñu ngeen interpellé mooy les droits de l'homme nous avons tous les ñu des droits de l'homme ñu avons des droits de l'homme. Nous avons ñu euh, parce que un un euh, mooy jóg taxaw ñaawlu parce que si nous ko bàyyee mu euh, la prochaine personne peut-être mi parce que nous avons lu kenn au au Sénégal Nous, yàgg nañu xeex ñu fi toog tey ñun ba pour que le Sénégal donne démocratie c'était des inconnus au bataillon pour ne pas dire que c'était des tout petits fonctionnaires parce que fonctionnaires, nous avons tamit tout petit Nous avons ci la donc euh, di len di euh, ñaax ñu xaar seen taxaway parce que li du wëy li du wëy nek ci dëkk euh, ne do wax do wax dëgg nek ci dëkk mëno nga don incompétent nek ci dëkk di dor katu marto nek ci dëkk télé fokk ni lolu dang kay def yoonu tol pour mëna continuer di yor réew mi da ngay da ngay nax sa bop lu am solo moy lu lu tax ñu fal la mooy yaakaar na nga góorgóorlu ba baña tass tas joju jooju wante kenn falu lepp nga nek fi di sonal nit ñi A ay intimidation parce que fii ragal dëkku fi donc lu def ni amul benn solo amul benn solo parce que xamante nañu suñu biir voilà donc loolu laa bëggoon wax di euh, continuer di ñaax ñëpp ñuy yeewu ci dëkk bi ak Sénégal ñor leen démocratie tamit mu continuer di Sénégal mu nekk lu leen ñor ñoom ñëpp nañu def seen kéem kattan ba taxaw euh, euh, interpeller les droits de les droits de vous n'avez pas le droit de vous taire vous n'avez pas le droit d'être partisan et vous avez la responsabilité de vous assumer mais surtout de ramener les uns et les autres à la tenue, à la retenue, à la lucidité et à la, à la sérénité. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est votre coalition qui est visée, euh, Mais notre coalition ne peut aucunement être visée parce que nous sommes en, en, pré-campagne électorale. Nous petite campagne. Euh, am yaakaar ci élection yi ñu am ndam bépp coalition buy compétir ci élection yi da ngay am yaakaar am ndam donc ku ñuy viser wax dëgg yàlla su nekkee le cas il perd son temps parce que bëgg a doon roi des arènes nga ne doo bëree da ko mënul nekk donc euh, moom ku may waxal xam na boppam mooy Mimi Mimi jooju moom na góorgóorlu ba sëgg te bëri parce que neex bañ naqari di nga sëgg te te te di nga bëri parce que loolu mooy démocratie loolu mooy politique il faut que accepter mom tamit les règles normales du jeu donc ñu muy def ni distraire ay nit heure bi noonu ñu fekk Dakar ñu ngi organiser suñu logistique euh, di topoto suñu ay t-shirt di topoto suñu ay panneaux publicitaires euh, di topoto suñu ay spécimens de bulletin de vote ak ñom sen donc ngay nga perdre lo suñu temps pour nous taxaw fi euh sur une histoire qui n'a aucun sens c'est de la provocation et c'est une prise d'otage. que mais mais mais mais magistrat a délit ci délit refus d'obtempérer refus d'obtempérer que dañ lay jàpp nga fipp fan nañu gisee Bougane di fipp parce que nag mën nga taxaw nga ne bon d'accord da ngeen am autorisation euh, dañ leen jox ordre pour ngeen ne convoi bi du jàll. waaw mais nit ki am na droit dox président de la république même Dakar suy suy romb oto yi la ñuy mais nit ñi am nañ droit dox tout de même te fan ngeen gisee sax président de la république Bakel muy doxantu fan waa ji di def yow yow yaa ngi ci suuf si di dox di nemeku sa ay mbokk moom mi ngi ci jaww ji moom ak euh, moo xam moom ak ñam nekk di naaw ci jaww ji waaye kooku en quoi est-ce que mën ngeen daje il faut être sérieux wax ci mooy lan mooy Bougane Gueye Dany dérange loolu mooy dëgg bi mais nag euh, il faut qu'on se comprenne te ñu nekk ci démocratie Bougane Gueye Dany waxugu fi luñ fi waxut euh, donc il faut soit il faut savoir raison garder parce qu'on n'est pas encore arrivé à des stades de deux président de may ou wala voilà c'est un droit constitutionnel que Bougane Gaïdani a exercé nañu may jàmm c'est ça la vérité et puis moi Mimi tamit je pense que xamul lan Sénégal il connaît pas le pays il connaît pas le pays Sous-diapé, il dit que Amna ay sont des marionnettes ils perdent son temps voilà. Ça ne marche pas comme ça. Et euh, je suis très bien placé pour parler de certaines autorités judiciaires de ce pays. Voilà. Donc, euh, en commençant par l'actuel ministre euh, de la, Justice. L'actuel ministre de la Justice, je le connais mieux que Ousmane Sonko. Oui. moi, je suis le Premier ministre du Sénégal. Donc, il faut qu'on essaie d'éviter de faire faire à des personnes des choses qu'elles n'ont pas envie de faire, qui ne correspondent pas à leur profil. Bougan Dani n'a aucunement violé la loi, aucunement. Donc, il faut savoir raison garder. leadership boobu s'il euh, dañu wax ni dañu wax ni ki nga xam ne moom mooy le président Bougane Gueye Dany war na mën a bénéficier wu ci li nga xam